moom la yónni woon ngir mu jottali jaam yi naka la ñuy jaamoo seen boroom subhanahu wa taala ñi ngi ñaan yàlla yàlla julli ci moom ak njabootam ak ñi koy roy ba ila yawmi diin mbokk fan yi ñuy dund ñi ngi dund ci suñu réew mooy benn école boo xam ni ay nasaraan ñoo ko jiite mu am doomi jullit yu dem di fa jàngi ren ñoom ñépp ñu dàq leen yemuñu ci dàq leen waaye dajale leen ca kuuru école ba parke leen fa ñu mel ni ay terroriste ñu def musiba bu rëy ba li ngeen dégg ci journaliste yi wax ko xale yu jigéen ñi témoigné ne même bu ñu jógee ji dem ca douche ya sax dañuy ñuy topp loolee nekk benn téeréer bu rëy benn tiis bu rëy boo xam ne ñi ngi koy wone loolu bi mu amee jeexital na ci suñu réew am na ñu bari ñoo xam ne feeñ nañ ci loolu ñii ci seenu mbon ñii ci seenu faiblesse bokk na ci loolu mooy lu jiitu mooy lii nga xam ne mooy étape sénégal ñoom ne nañu woo nañu waa l'école ba la nga xam ne moom lañuy ñuy dëppoo mooy waaw xale yi nañ leen bàyyi ñu jàng ak seen voile waaye nag la ñuy muroo école ba moo koy génne moo koy tëral loolee mbokk dañuy gis ni mayatuñu kon xale bu jigéen boobi gëm diineem mu dund diineem nam ko yége waaye le président ba nekkoon ca France de Sarkozy doon wax l'islam de France ñoom it dangay gis ne l'école ba lu ñu bëgg mooy voile bu Saint Jeanne mais pas voilu l'islam loolu mbokk dangay gis ni erreur mënu ko passé mu am nag beneen mbir boo xam ne xëy na gën nañu puusa sax ñu dugg ci xutba bi mooy kenn koo xam ne dañ ne professeur la ca université Dakar di soxna soo xam ne yàgg nañ koo xam ci jël ay position yoo xam ne dafay delloo gannaaw l'islam di tilimal l'islam di caricaturer l'islam ba en 2011 lii di Vatican ba nga xam ne mooy xalif généralu chrétien ya fam mu nekk décerné nañ ko benn prix Nobel bu Jean Paul de jox ko ko kooku génn na ci média yi daal di critique muuraay yi ñàngal muuraay yi yemul foofu mu ne du yemale fi débat bi buñ fi jógee it moom dana def campagne ba xale yu jigéen ñi muuruloo loolee ñu fexe ba mu jóge suñu réew du suñu aada réew ci moom ci ay waxam nee na muuraay def na ci gëstu bu yaatu ba fexe na ba ñu indil ko suuratul xijaab bi mu jëlee suuratul xijaab nee na gëstu ko xool ca la gis ne ñii dañuy wax rek waaye muuraay aaday arab la li ñuy jëkk a wax laaj leen seen doom yi nekk ci daara ji alquran téeméeri saar ak fukk ak ñeent ma nga commencé ca fatiha baqara jeexa naas suuratul xijaab day ci moom laa ko mës dégg ba ma juddoo ba tey te jàpp naa it boo demoon makka ak madina mboolem borom xam-xam ya fa nekk soo doon laajoon suuratul xijaab xamuñu fu suuratul xijaab nekk ci téereb yàlla bi moom nag fexe na ba génn ci suuratul xijaab waaye ala xaal bokk na su doonte ne dañuy wax ak moom sur le plan intellectuel waxuñu sax ci wàllu diine mais dañuy wax rek sur le plan intellectuel dañu naan ko yow nee nga jullit nga alxuraan yàlla ko wàcc fexe nga ba génne ci saar boo xam ne nii yàlla da ciy wax wàllu xijaab léegi lu tax na nga ne sa nga ne aaday arab la li gënoon logique mooy man jàng naa alxuraan ba mu jeex gisuma ci muuraay su boobaa boo nee aaday arab la des ko mën a nangu mais nan ngay waxee ne yàlla wax na ko ci alquran ci suratul xijaab ba pare ne aaday arab la mbokk loolu dangay gis ne euh, musiba bu rëy la donte ne ne moroom yi intellectuel yam takk nañu ànd ak moom waaye mbokk li ñuy jëkk a wax moo di ne mbokk xijaab boobu suñu borom yàlla da ko tëral depuis mu tëral asamaan ak suuf mboolemi diine yi fi jaaroon dañoo digal seen njaboot ñuy muuru yow ndaw jullit bi may déglu soo delleew kër ga demal sa ordinateur nga bind que dit la Bible sur le voile que ce soit l'ancien ou le testament da gis ne ne mbokk affaire muuraay googee dañu naan la bu ñu dellu junni at avant Jésus-Christ avant yonent ay Isa nga dellu ci yahuud ya dañ daan wax ni jigéen góor dafay war muuru lañ daan xàmmee jamono jooje jigéen ñiy jaay seen bopp ak jigéen ñi nga xamee ne nii dañoo doon ay jaam mooy jigéenu góor ñi dañuy muuru ku leen gis xam ne ñii kat ay jigéenu góor lañu kenn amul droit laal leen amma jigéen ñi jaay seen bapp dañ leen doon tere muuraay ñu xam ne ñii ñu bon lañu ko bëgg na ko laal na dem ci ñoom loolu mbokk dañ naan la mille ans avant Jésus-Christ ban amoon nañ ñoom seen aada mooy jigéen en général presque góor ñi daawuñu leen gis ba dañ naan bis bi nga xam ne ca ngay sëy ca ngay doog a jàkkaarloog sa jëkkër ba am na histoire sax boo xam ne dañ koy ah, duural ci yeneen ci yàlla yanquba alayhi salaam ne soxna ba mu bëggoon a takk keroog guddik céet ga ba mu demee ba dindi muuraay ba la gis na dafa def erreur loolu histoire bu gudd la waaye li ma lay wax rek mooy loolu ci internet da ngay gis ne avant diine nasaraan di ñëw yahudiya seen jigéen ñi dañ leen doon muuruloo tey nga dellu ci li ñuy diine diine nasaraan dellul ci seen téere yi jëlal lu mel ni l'évangile selon Paul da ngay gis ne Paul boobu boo demee ci téere yi nga xam ne bind nañ ko indi ko fi en français dañ naan si c'est honte ah, que la femme qu'elle porte le voile bépp jigéen boo xam ne tey rusoon nañu wat ko neel muy dox ngalawaay na na na na muuru mu nekk la femme qui porte pas le voile soit tundi bépp jigéen boo gis ñuy dox ba pare muuruwul dab leen ko wat ko nel mbokk loolu lislaam wax ko loolu diine nasaraan moo ko wax mu ngi seen livre yi loolu kon pourquoi kookee ñuy wax ab professeur la lu tax waxut loolee mu tëb tëb dal ci lislaam ne alors julit ñi ñoo fi indi muuraay ci muuraay boobu dafa nekk aaday arab ala kulli xaal mbokk loolee da ngay gis buñ doon wax ak moom rek ci wàllu intellectuel ci loolu lañ koy tont amma yow ndawal julit yow janq julit bi ràññee yow sama yaay julit ngallaawaay maa ngi lay xamal ne muuraay boobee suñu borom yàlla subhanahu wa taala ba mu koy tëral dafa jàkkaarloog ab yonentam ne ko ay yow yonenti yàlla bi yaa ayuhan nabi qul li azwaajik lii ma lay digal jëkke ko ci say soxna waxal soxna yi nga yor wa banaatik ak sa doomi jigéen yi nga yor yaa ngi dégg doo ko wax nag jigéeni jullit ñi nañuy jël seeni jalaabi di muuru la nga xam ne seen awra suñu borom neena na bu ñu muuree muuraay googu nit ñi dañ leen xamé ba kenn du leen lor ab say say du yegg ci ñom ba di leen lor ca lolu wax naa la ni 1000 ans fekk nañ ko ci téere 1000 ans avant yonent yàlla isa yàlla feddi li ko wàcc téere bi yàlla bi ca lolu la yonent bi alayhi salaam waxoon innama buistu li utammima makarim al akhlaq yàlla daf ma yónni ngir ma motali jukku yi rafet yi kon du lislaam moo indi jikko yu rafet ci kaw suuf kala islaam mi ngi commencé woon ci aadama jaar ci nuux ibrahim ba yonent yépp ñëw amma suñu yonent nag dafa ñëw nag moom daal di koy mottali kon loolu mbokk moom muy muuraay avant professeur bu jigéen boo nga xam ne moo gën a réer ay ganaar yi këram am na benn kilifa diine fii ci senegal koo xam ne it baay mi yar na ko ba duufal ko mu jàpp ne moo yor xam-xam mu ne mais xijaab jël di muuru di lëfër lëfër yi mais mu ne loolu du kenn du xam lu mu doon xijaab mooy personnalité bi jigéen di am ba góor du ko ñeme loolu mooy xijaab donc moom ci waxam jooju weddi ne ci yàlla bi jàpp ne ne soxna yonent yàlla yi amuñu personnalité doomu jigéeni yonent yàlla yi amuñu personnalité soxna saxaaba yi alxuraan wàccoon jëm amuñu personnalité ba tax yàlla ne leen ut leen yéen ay lu ngeen di muuroo ndax amu leen personnalité bu tax ba góor du du du leen ñeme loolee mbokk da ngay gis ni ay wax yéeféer la waxuñu ne yéeféer la waaye wax na wax yéeféer mbokk suñu borom yàlla subhanahu wa taala nañu xam ne moo moom ay jaamam mooy dogal ci ñoom lu leen lu ko neex ñee mu ñuulal ñeen ñii mu weexal leen ñii di góor ñii di jigéen borom boobu nag mooy ki nga xam ne mooy borom yërmaande borom xikma lépp lu mu digle rek day fekk ne amu ca benn njëriñ moom mais njëriñu ay jaamam la mu ne yàlla mi ngi nii moo bind lu mu mën a doon ca it mooy kii taxe lu mu a doon ngalawaay ni ngeen ko jaamu ci wékku ci moom mbokk loolu nga xam ni soxna si réer soosu waxoon na ko ne indil nañ ma surat xijaab bu te ne yàlla dafa wax benn yoon xijaab ci alquran sax dañ naan dafa juum aaya xijaab la bëgg a wax mu ne surat xijaab waaye mbokk yàlla xijaab boobu ndax biñ doon la ko wax ci alquran déedéet ay yoon yu bëri la wax li ma la wax sànq mi ngi suratul ahzab waaye boo demee même ci miir surat boobu mi ngi wax ak soxna yonent bi di wax ne góori jaambur yi bu ñu dugg ci néegu jigéen ñi di jàkkaarloog ñoom wa iza saaltumuhunna mataan fasaluhunna min warai xijab nañuy dox diggante xijaab seen diggante mu daal di wëlbati ko ci suratu nuur daa ji ne yow yonent yàlla bi waxal ma la nga xamee ne nii mooy julit ñi góor ñi nañuy sajj seeni bët ba ñu xool awray jigéen ñi waxal jigéen ñi ñu sajj seeni bët bu ñu xool awray góor ñi waaye jigéen ñi buñ yem foofu ñoom comme yàlla da leen bind ñooy attiré ngalla waaye nañuy muur seeni awra seen awra yooyu di seen taar nañ ko muur jël seen muuraay ya tëj la nga xam ne mooy seen dënn ya ak seen baat ya gannaaw ba mu ne bu ñu won seen taar lu dul seeni jëkkër seeni baay seeni baayu jëkkër seen doomu jëkkër benn list boo xam ne yegg na ay treize personnes yoo xam ne suñu borom yàlla nee na ñii rek ñoo am droit jàkkaarloog jigéen di gis kanamam di gis karawam di gis nangam nangam ñii rek ñoo ci am droit keneen ku dul kii amul droit ci gis loole suñu yaay Aïcha mu ne yal na yàlla yërëm jigéen yi muhaajiroon ak ansaar aaya yii bi mu wàccee bi ñu xëyee madina ñoom ñépp dagg nañ seen mël faye ak seen sëriya daal di doon ñoo xam ne dañuy muuru loolu mbokkoo julit kon muuraay mi ngi noonu du aaday arab du du lu ñu leen imposé muuraay ci yàlla la jege ca xam alhamdu mbokku julit dangay gis ne diine yu jëkk ya bañ demee ba dérapé ci seen diine seen aada yàqu dañoo mujj dem ba muuraay boobu ñu yemewale ko ci la ñuy tuddee ñoom de religieux mooy ñi nga xam ne ñooy nitu diine lañu ba la ñuy tuddee seen sœurs yi ak ñooñu ñooy presque muuru ñi ñooy fii Sénégal ci loolu lañ leen xamee waaye loolu daf leen a dab xataa lu yàggul dara laa jël professeur Samb bi ci jàkk bi yaroo Saint-Louis da ngay gis ne école yooyu nga xam ne nii ca la chrétien yi jëkk ubbi seen élève yi fa daan jàngee dañ daan muur ba daj kapp kenn du gis si ñoom dul seen kanam ak seeni loxo gannaaw ba nag lañ ñëkk di modde di modde ba sër yi mujj as voile yu ñu teg seen kaw bopp loolu loolu moo mujj dem ba dab lislaam ñu dem ba muuraay googe ñu yemale ko ci jaboru sëriñ si bépp jaboru sëriñ bu génn ci muurawul nit ñi xeeb ko sun maam yi daan tegale ay sër dënk di ko muuroo loolee nag mbokk da ngay gis ne warul woon sëriñ soosee dañoo déraper foofu dañ faa def njuumte ndax waruñu ko woon a yemale seen jabar dañ ko war a tasaare ci ñëpp fa la ñu dem ba fëri lay alhamdu dans les années 70 moo am ay ndaw ñoo xam ne jàng nañu seen diine yematuñu ci diine ji laa fekkoon sama baay ak sama maam mais dañoo dem jàng seen diine xam ko ca la ñu jóg ci seen volonté ñoom daal di commencé di muuru cay jigéen ña ña cay góor it di muuruloo seeni soxna ba muuraay boobu fari la alhamdu dugg dans le milieu des intellectuels partout tey da ngay gis ay xale yu jigéen yoo xam ne dañuy muuru kan moo leen ci forcé amul benn baay bu leen ci forcé bal wallahi xam nañu ay jigéen ñu bari ñoo xam ne seeni waajur xeex bu ne xeex nañu leen ko ngir ñu dindi seen muuraay mais dañu duñ ko dindi lu tax ndax dañoo dem ba jàng ba xam ne li yàlla ko digle loolu laa lay digal yow mi may déglu Fatou Thiam ak koo mën a doon góor góor góorlu xamal ne muuraay gi bu dee duggagoo ci yàlla subhanahu wa taala ko digal suñu borom yàlla nee na yellul ci benn góor wala benn jigéen ndigale yàlla ñëw ci moom ba pare mu naan nag waaw xaaral walla nangam walla nangam mbokk loolu ci seytaane lu jógee bàyyi leen roy tubaab bi roy leen diini lislaam dëppoog seen boroom ca ngeen di amee la nga xamee ne nii mooy teraanga ak teraanga àllaaxira ñi miin conférence yi may def xam nañ ne 15 ans ci gannaaw maa ngi doon wax benn femme jigéen chrétienne bu ñëw ci man ne ma mais imaam ñun dañoo bëgg a muuru mi ngi tuddoon Suzanne Mendy mi ngi dëkkoon fii 24 ñu xam amoon naa foofu benn magasin. Suzanne Mendy mu ñëw ne imaam ñun dañoo man dañoo dañoo war a muuru pour ñu takk ñu ñun kat temps yi ibaadu yi dong lañ gis ñu leen takk. ma ne ko waa mais li koy jiitu kay mooy ñu dugg ci lislaam maa ngi leen di bégal na soxna soosey mujj na dugg ci lislaam ba ñu takk ko. ah daaw la faatu yal na yàlla teedoo koy jéggal ak ajërmaande loolu mbokk mi ngi noonu kon da ngay gis tey jii xale bu góor bi xellu laa wax de bi xellu ak jamono bii nii mu yàqoo nga gis xale bu jigéen boo xam ne mi ngi xijaab du nangoo jox loxoom góor du dem baal du dem kole dara daa di def barrage mbokk ku mel noonu soo bëggee jabar yoo xam ni da nga ko ndax da nga ko yemalee kee jël chevelure trois cent ak quatre cent mille def ca bopp ba génn poojam génn ay weenam génn léppam mel ni jinni tubaab kooku boo ko takkee ngir looli dangay xam na takk nga ko pour le bonheur mais noo koy wóolu mun noo ko wóolu abadan loolu moo tax ba mbokk suñu borom yàlla subhanahu wa taala teral gim teral jigéen ak sécurité bi mu bëgg a may góor xamal ne kii day boo ko takkee pour yow la mais du pour société bi loolu tax suñu borom yàlla ne leen ñu muuru loolu kon mbokk ñu góorgóorlu bàyyi wàcc xel bu baax mbokk yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na suñ demee bu mu jamono dana am ñaari mbooloo yi génn sama xeet Ni dañoo yor seeni yar di ni nit sans raison ca loolu mooy képp koo xam da ngay militaire policier kum c'est des métiers très nobles mais des métiers très dangereux képp koo xamee ni ay ordre ñëw na ci yow ñu lay ay innocent nga la waay dem prison plutôt que de def fàttaliku ko leen ki nga xam ne mooy Muhammad Ali nga xam ne rahimahullah nekkoon la boxeur bi gën a siiw ci àdduna bi keroog bi bi ñu ko jëlee forcé ko pour mu dem guerre Vietnam daf ne c'est une guerre injuste Vietnam yi defuñu leen dara gars yi jàpp ko tëj ko ci kaso bi ay at mais da koo muñ ba mujj faa génne ak ndam kon je suis policier ou lu mën a doon du tax abadan ñu lay sant des missions yoo xam ne nii du mission bu jub nga koy exécuté au sens de l'ordre ou bien des salaires waaye ñeneen groupe bi mooy ñan mooy yonente bi alei salaam nee na ay jigéen ñu nar a génn sama xeet yàlla da leen di nattoo seen yére bari lool lool wallahi yàlla musul nattoo àdduna lu toll ni nim ñu nattoo tey ci ay yére mu ne mais buñ génnee seen awra yëpp day nekk ci bicc ñu jeng ñu di jengalaate seen bopp yi dañ ko yëkkati mu mel na ay bopp gi leen yonente bi alei salaam nee na ñooñu duñ dugg àjjana xeetu àjjana sax du leen xeeñ duñu dugg àjjana xeetu àjjana du leen xeeñ waaye mbokk jigéen ñooñu fu ñu génne ndax seeni kër lañ génne déedéet quatre-vingt-dix-neuf pour cent ñi gi génne kër Muhammad kër Ibrahim kër bàyyi julit ñi loole seene bàyyi leen di seetaan ci loolu xanaa dégguñu waxi borom bi bi wax ne yaa ayuha allazina amanu qu anfusakum wa ahlikum naara ay yéen julit ñi fexe leen ba seen njaboot duñ dem safara fexe leen ba seen doom dem safara bus bu ne sa doom yeewoo sa kër ak melokaanu jëm safara nga nekk continuer ak moom ci jàmm di waxtaan ak moom di reetaan ak moom te mi ngi nekk ci yoonu jëm safara nga bu dee gëm nga ba wax yonente bi sallallahu alayhi wa sallam lii mbokk ku nekk ci yéen war naa bàyyi xel ci loolu njaboot gi ñu war leen a jàngal njaboot gi ñu war leen a yar yeneen ci bi alayhi salaatu wasalaam nee na ak dayuus du dugg aljanna kan mooy dayuus mooy koo xam ne yaa ngi xool sag njaboot ñu nekk ci yoon boo xam ne nii yoonu perdition la ba pare nga seetaan leen ci loolu loolu mbokk ku nekk ci ñun lu wàcc allahuma lu dul yéen jigéen ñi nga xam ne yàlla wërsëgal na leen ngeen euh, sax ci seen muuraay xam leen ne yéen a ngi ci jihaad bu mag yéen a ngi ci jihaad sax leen ci jihaad boobee wallahi muuraay yi bu woon dara néewu ci lu dul di tubaab bi bañ rek jar na nga ñu ko def yàlla na yàlla yërëm suñu doomu ndey bi El Hadj Fajur daana wax ne sikkim bu ko lislaam diglewul woon sax bépp góor bu am personnalité war a yor ndax ni ko tubaab bi bañee pour rek naqaral tubaab bi contre tubaab je veux dire tubaab yu bari ay jurit lañu waaye ni yéeféer yi bañu sikkim rek war naa tax yow jurit nga ba nga nga nga war a yor sikkim loolu la ñuy wax ci yow xijaab yow xale bu jigéen heure boo génnee nga sol sa hijab xamal ne yaa ngi merloo yéeféeri ca loolu mooy màndarga julit yujibu zurraa li yaxiisa bihim alkuffar suñu borom nee ne julit ñi yàlla da leen a génne ñuy bégloo yàlla ak yonent yàlla di merloo yéeféer loolu muy benn ñaareel bi it xamal ne yaa ngi am yool bu mag jamono yi fitna amul kenn ku ciy sax ci ci ci njub lu dul yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waxoon na sahaaba yi jamono ngi ñëw ñii nar a téy ndigalu yàlla dañu am yoolu juróom fukk ci yéen saxaaba yi naa xanaa ci ñoom mu ne déedéet ci yéen ndax yéen a ngi jamono boo xam ne nit ñi dañoo xam lu baax am ñu leen ci jàppale jamono ngi ñëw nag lislaam day nar a tumuranke comme na tumuranke woon ci njëlbeen ba képp koo xam ne yaa ngi jóg dund diine da nga doon ku ñuy joxañ baaraam danga doon ku ñuy reetaan danga doon ku ñuy jàpp da ngaa tardé mi ngi noonu waaye mbokk dañoo tardé gërëm leen ci seen tardé googu bàyyi leen ci seen avance boobu nañ la raw ñoo ñal da ngaa ñoo la raw fuñ la raw ñii ngi la raw ci yoon bi jëm jahannam ndax da nga leen cay dab déedéet bàyyi leen ak seenu yoon yow nga jàdd ca yoon wa jëm aljanna yoon ba jëm sa ngërëmal borom gannaaw loolu itamit mbokk jurit xijab boobu boo koy def def ko ci yàlla tax bu ko def ngir modd bu ko def ngir société bi bu ko def lu dul ngir am ngërëmal yàlla jalla wa ala soo demee ba di ko def ngir al am ngërëmal yàlla subhanahu wa taala nag dalaa war nag nga dem laaj borom xam-xam yi xijaab moom naka lay demee mbokk xijaab boobu tey li ci gën a siiw mooy xale yu jigéen yu bari yal na yàlla fay leen dañoo jàpp ne xijaab mooy nga am benn kol muur sa bopp jeex na bu la neexee nag sol sa body sol sa pantalon sol sa nangam sol sa nangam déedéet mbokk jullit xijaab mi ngi commencé sa kaw karawu digg bopp ba baa sa suufu tànk lépp loo xamee ni nii dangaa bëgg xijaab bu mat dafay am juróom-ñaari charte yoo xam ne nii waru koo bi ci njëkk mooy yaram bi yépp na muuru bam des kanam gi ak loxo yi fi ñuy takk montre ca loolu mooy borom xam-xam yi gën a tolérant gis noonu débat bi fi amoon deux ans trois ans ci gannaaw mooy ndax niqaab farata la wala du farata lan mooy niqaab mooy muuru kanam waaye ñun loolu du suñ problème tubaab yi dañ naan dans les pays des aveugles la borgne et roi waa arabie saoudite mën nañu nekk di discuter ndax niqaab farata loolu du farata mais ñun waa sénégal niñ ñaan yàlla rek suñu jigéen def farata bi nga xam ne mboole ñu borom xam-xam dëppoo nañ ci lan la mboole ñu borom xam-xam dëppoo mooy jigéen war na muur awraam yépp ba mu des xar kanamam gi ak fi muy takk montre jëm fi nga xam ne mooy suuf mooy jëm ci cati baaraamam ñaareel bi mooy fokk war naa doon loo xam ne daa fatt du doon yëre bu yaraax boo xam ne boo ko dàndee gis der bi képp ko solo noonu xijaaba goo war naa doon loo xam ne daa yaatu bañ a xat te loolu it mooy natt bu rëy bi yàlla natt suñu doomi jigéen yi ëpp ci ñoom ñuy xijaab soo bëggee ñawlu da dangay dem ci tayër bi tayër bi natt la natti ween yi natt biir bi natt lépp nga sol loo xam ne yàlla na yàlla yërëm kenn ci suñu mag réew daana ko naqarul jamono muy suñu Haadi Ture ma ko daan tuddee mbarum fetal mooy ni nga xam ne da jël sa fetal dogal ko ci pochette bi muy dugg mu jël formam nee ni jigéen ñi bari noonu la ñu def seen yére déedéet yére bi dafa war a yaatu jànq nga am jéeg nga am mën a doon gannaaw ba it xamal ne bokk na ci ñeenteel boobee mooy war naa doon loo xame ni nii du doon ab taar boo xam ne boo ko génnee ñépp toog di la seetaan loolee mbokk da ngay gis ne warul allahuma sunu jigéen ñu bëri yàlla nattoo na leen ci loolee moo di ne ne jigéen war naa taaru mais taar ba dafa war a am fu mu limité yam amma boo nekkee ci sa moroomi jigéen say mahaarim lu la neex mën nga koo taaru amma booy dem di génn ci ci góor yi jàmbur war ngaa xool yan façon yére ngay sol bokk na ci loolu itamit yow soxna si mooy booy génn moytul tuuru parfum yonent bi alayhi salaatu wasalaam daana wax ne bépp jigéen boo xam ne yaa ngi génn ak parfum bu fort du romb góor ñi ñuy xeent parfum boobu kooku yaa ngi nekk ci benn forme ci forme njaaloo war ngaa góor-góorlu bali li ngay sol bañu nuru nuru yére ji yëre góor ca loolu it mooy ibaadu moderne yi xew suñ jamonoy tey mooy mbokk pantalon ca lu la nga xam ne mooy seen yëre yu bari yi ngeen di sol ca góor la ni nga xamee ni sa frère bi nga nekk ci kër gi bu génnoon sol benn jupe sol benn ah, décolleté génn di dem doo ci d'accord yow yow yow rakkam bu jigéen sax doo ci d'accord muy génn di sol ay robe ak i ak ak i pantalon ak i ak ak jupe naka noonu tamit col gi nga xam ne sa frère moo koy sol bàyyi ko ak sa frère solal la nga xam ne colum colum colum jigéen la bokk na ci loolu ba tey mbokk julit mu bañ a nuru nurulu bépp col boo xam ne yéefiir yi dañ koy solo yii da gis ne juróom-ñaari charte la ñooy daje ci ak col-col googee doo ko baax su ko defee yow mbokk julit nga la way xamal àdduna koo gis am na ay fans amna koy rayu kayam sen rayu kay yàlla wax na len ko ci téré bi moy soxna yonent bi ñooy ummahatul muminin gor góorgóorlu len di bàyyi xel kan moy khadija kan moy suñu yaay Aïcha suñu yaay Hafsa bàyyi len xel Sumayya mi nga xamne moy ki jëkke joxe bakanam ngir lislaam taxaw ngir lislaam tedd bàyyi len xel jàmbaari l'islam ya nga xamne ay jigen lañu woon bu gor ñi daan jihad ñoo top sen gannaaw ci xamne aduna lu muy yag yag day jeex ci yit ni ngeen ko doon waxee ci xutba yi passé képp koo xam ne mi ngi lay reetaan ci ci sa hijab mu ñëw ko ba ngeen daje ca morgo ba bis bi ngeen daje ca morgo ba da ngeen xam yow mi doon xijaab ak moom mi doon sànni aw yaramam ana kan moo ci nekk ci dëgg te jàpp na amul benn bàyyi boo xam ne doomam dana dee mu solal ko pantalon ak décolleté dem di ko suul bala koo yóbbu dana ko muur ba mu daj comme ne ko lislaam waxee noonu la ko lislaam sant bi mu nga muur ko noonu la la lislaam sant bi muy dund nga muur ko yal na yàlla delloo ñu ci lislaam gën jaa rafeti delloo yal na yàlla rafetal ngëm ci suñu biir xol yal nañu yàlla bëggloo ngëm yàlla dundaloo ñu ngëm yàlla suñu njaboot gi yal na yàlla teete leen mustaqim mboolem yàqkat yi nekk ci suñu réew yàlla na yàlla naxasal seeni pexe yàlla na yàlla def sénégal muy réewum lislaam bu yàlla gërëm yàlla wàcce fi naataange boo xam ne dañ danañu ci sukkandiku mën a jaamu yàlla bañ koo bokkaale dara yàlla na yàlla rafetal suñu mucc yërëm ñu yërëm ñu bépp julit allahuma rabbana atina fi dunia xasana wa fi alaxirati xasana wa qina azab annar subhana rabbika rabil izzati ma yasifun wa salaamun ala almursalin والحمد لله رب العالمين